oustaz bu fi osé nag ba jël suma tur def vidéo ci man lu la ciy fekk rek xaar ko encore une fois maa ngi leen di fàttali te di leen dëggalal ne lu ngeen mën ci man katt leen seen cottu ndey ngeen def ko lu ngeen mën ci man rek def leen ko ci zahir bi mooy lu feeñ ak ci lu nëbb seen plainte yi nag katta ndeyam mat 10 000 doomi xaram yu ngeen doon su ngeen ma tëjee rek Cheikhou Tidiane du wàlliyu man maa oo Alioune Harasimi yóbbante ko ci te Tidiane mu garanti ma seen data yaa yéen ñëpp maa leen ëpp sañ-sañ ci yàlla ëpp leen fit mais yéen a ma dàq dul yéen a ma dàq boole du ngeen ay góor Mame Makhtar Gueye yaay duul nga ne ay kilifa diine ay nangam ñoo lay woo yow yaa mën a duul ban kilifa diine moo la yaakaar kilifa diine bu yaakaar Mame Makhtar Gueye amoo cër ci diine ndax fenkat la fenkat duñ ko yaakaar ñooñu noonu neen ñëw jàkkaarloog man nga dem ci penc mi tek sa minute yi yow yow yow da nga meuna dul te doy dul duuluñ harmoniser yow da ngay fen ñep xam da ngay fen sa association bu katande mi nga xamne yefi kenn nit la nga paré tax wax jamra sa dënd bi ngay laal akbar body language speaks more than the language itself sa dënd bi ngay joxeñ nan ni jamra parce que jamra amul yow la kan mo def jamra police moral pour muy contrôler dina ji lan mooy Jamra ku ko reconnaître NGO la rek like any other NGO ONG la comme ONG yëpp ngay duul fii di mbéppi mbéppi soo paree di yow lu amul bës bugguloo ko da nga xewi woon ci lii nga bëgg a xewaatee ngay duul demal nga ñaanal sa mag Latif Gueye te gëstul fan la nekk te waat naa ko ci jëmmi yàlla ji soo xamoon fam ne sa itte mooy dem ñaanali ko